asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokku téléspectateurs yi maa ngi leen di ah, ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di leen wax ne nag tey ñu ngi mardi 9 novembre 2021 li may def mooy bàyyi leen ngeen dem déglu te seetaan yëglikaay li ñoon li ñuy diggaat ak yéen si plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah mardi 9 novembre 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay sunu làmb leen kay doore. yëglikaay bi tey xëtam mu njëkk maanaam la ca xëy gën ca fës bokk na ci Pape Abdou Fall ma nga xam ne démb doon na daje ak ña nga xam ne nii ñoom ñoo di presse ba mu mel ni ki nag Pape Abdou Fall daal diggante Siteu ak Papa moom maanaam fawu ci caaxaanu ci te itam nag fasu ci yéene maye dara rawatina lu jëm ci côté sécurité moo tax daal Pape Abdou Fall mu ngi xamal na ci yëglikaay bi daal bu bëggee dégg dëgg moom lu toll ci wàllum police ak gendarmerie maanaam dana ci mobiliser lu toll ci six cent personnes maanaam juróom benni téeméeri takk der ci moo xam police la wala muy gendarmerie ngir la 5 décembre ndax nag boo bëggee dégg dëgg daal nee na maanaam daal la muy wër mooy li nga xam ne nii daal mooy tax maanaam làmb ja mu génn ca ak ndam ak itam la nga xam ne nii maanaam ku fa ñëw di ab sénégalais seetaan si ko wala foo mën a jóge maanaam nga ñëw dugg ci jàmm génn ci jàmm maanaam daal sécurité moom maanaam ba mu mat sëkk-sëkk loolu la Pape Abdou xëy tey di ko wax ne na itam boo bëggee dégg dëgg ci côté pare ngir bi moom ne na boo bëggee dégg dëgg Pape Abdou Fall na bu doon suba suba sax pare naa ngir def ko ndax itam jàpp na ne moom bu ree ci côté am am laak yu deme ne kii doona ne na loola moom du sax ay jafe-jafe wala lu muy tëdd di ko xalaat suba sax laa naal maanaam pare na ngir boobu lépp combat beneen combat boo xam ne ni maanaam mu ngi ci yëglikaay bi mu xëy tey dinu ko wax mu war a dox ci diggante ki nga xam ne moom moo di abu ñaase ma nga xam ne leet naawu si la ak Pape Ndoy ma nga xam ne leet naawu lagros la de rakkam moo tax yëglikaay ba jàpp ne le 21 novembre moom soo bëggee dégg dëgg foofa itam nar naa yëngu lool ndax nag Poulain Sitta ak Rakki Lagros ñoom ñaara fas yéenee daj le 21 novembre yëglikaay ba xëy na tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne nii yëglikaay bi xëy na tey ñëw dina ko wax muy koo xam ne nii tamit bu bëggee dégg-dëgg boobu ba tey mu ngi dox dox goo xam ne daal juróom ñettat yoo xam ne toog na ko daanuwul am teglante lu mel toll ci quatre victoire muy forsa bu Fass moo tax yëglikaay bi xëy tey sampaab laaj di laaj ndax ki nga xam ne nii moom moo di pakala est-ce que mën naa arrêté ka nga xam ne moom moo di Forza ci dox goog nga xam ne mu ngi koy dox gëj a am defet lool yëglikaay ba moo xëy tey ñëw noonu bu nu continuer ba tey ci yëglikaay bi mu nga xëy tey ñëw beneen mbër boo xam ne tamit war na bëre muy ka nga xam ne moom moo di Alioune Seye 2 yëglikaay bi ne na ginnaaw ba mu daane Issa Pouye jëm ci moo tax nag yëglikaay ba ne na ñu ngi xaar Alioune Seye daal la mu defoon ak Issa Pouye ndax dana ko confirmer moom moom ak sos seen combat ba nga xam ne nii daal ca lañ fas dëkk dëkkmal yëglikaay bi moo xëy tey ñëw di wax lu mel ni ki noonu yëglikaay ba am na leen loo xam ne xëy na tey wax nu ko mel ni ki daal jàk si tamit mu ngay 14 novembre fa nga xam ne moo di ca stadium Iba Mar Diop ak la nga xam ne teg na ko fa ci ab xaalis muy mise boo xam ne daal toll na ci 5 millions de francs CFA yoo xam ne fas na ko yéenee tegal mbër ya nga xam ne dañu yëngu ci wàllum bëre simple yëglikaay ba moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu beneen xale ngi moom ci biir yëglikaay bi ñu koy wax serpent bu parcelle mu nga serpent nag moom écrit parcelle mbooloo la nekk waaye daal kamu taamu jàppe koo xam ne daal moom lay roy kenn koo xam ne ni moom lambi simple ja mu ngi cay wane boppam rawatina kenn bi nu génn ñu koy wax ka nga xam ne moo di soox soox daal yëglikaay bi ne boo bëggee dégg dëgg daal maanaam wane na boppam rawatina fa nga xam ne moo di ca joof yor ka mu finaalul nag moom moo di Ibou Ndiaye ubbali daal la fa finaalul wan ko boppam moom soox soox yëglikaay ba xëy ñëw tey di wax lu mel ni ki noonu ba tey bu nu continuer ci yëglekaay ba nga xam ne moom moo di wala boog nu jóge fa dem record record moom ka mu xëy tey seqal waxtaan moom moo di ka nga xam ne nii nii moom moo di Fallou Ndiaye Fallou Ndiaye ma jiite Ndiaye production moom daal ne na boo bëggee dégg dëgg daal maanaam kontul woon sax ci ay ci ci combat ba nga xam ne moo doxoon ci diggante Tafa Mbër ak Fada Fass moom maanaam maanaam daal ne na wàllum billetterie ba daal boo bëggee dégg dëgg maanaam mel na ni daal génne na ko ca moom Fallou Ndiaye maanaam daal loolu la xëy tey di ko wax ne na ñi ma sax aussi di wax Sénégal yi naan dafa perte yu mel ni noonu maanaam daal ne na billetterie ba daal boo bëggee dégg-dëgg daal maanaam moo ko ca génne bu baax a baax yemu ca moom fàllu tamit wax na ay dëggam ne na mbër boo xam ne daal maanaam wàllu mobilisation moom nekkoo ca di ko def ne na moom xalaatul di la tëgg ndax itam du jëlab xaalisam di ko sànne wala mu fay koo xam ne xaalisam mënu koo indil dara moom fàllu njaay daal gis-gis booba la am bu nu continuer ba tey beneen combat boo xam ne dimanche ji nu génn Iba Mar Diop la amee woon sëñ Modou ñaa tëggoon ko mu doxoon ci diggante Doudou Sané Xaddaafi ak Rhinocéros Fass bu caaroy waaye ñaari mbëree daal maanaam fa ñu mudde mooy ndam loo xam ne Doudou Sané yóbbu na ko ci ay avertissement yoo xam ne ka nga xam ne mu moom mu ngi doon amee fii ci réew mi te sunum réew gañe ko muy tournoi CEDEAO bi yëglikaay ba daal ñëw na tey ne boo bëggee dégg dëgg daal xaalis ba nga xam ne nii daal tegoon nañ ko maanaam yëglikaay ba nee na Sénégal lam ca dajale ci wàllum xaalis boo xoolee toll na ci onze millions de francs am na ko ci 35 combats yoo xam ne boo bëggee dégg dëgg jongante na ko kon boo bëggee dégg dëgg dal ba mu duggee ca tournoi ba ak réewi Afrique yam ko seqaloon rawatina ña nekk ci CEDEAO ba Sénégal ñaari défaite kese la ca jële wala ñaari combat la ca per waaye boo bëggee dégg dëgg ay ndamam bari na lépp ca xaas bay tamit moo ko yóbbu moom Sénégal yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dina ko wax moom record mu mel ni kon daal la nu mën a xam daal mooy sunu lion yooyu nga xam ne ñoo doon défendre couleur nationale ci fi kon bii nu génne maanaam dañ leen naan bravo moo xam booy fay la moo xam ordinateur la moo xam Ngor ñaax la moo xam ka nga xam ne mooy Ganja faama la ba ci Moussa fay ak seen coach ba di Ambroise Sarr kon daal jaaraama sunu gaynde yi noonu la ñuy ñaanal tamit gaynde football ya nga xam ne ñu ngi ca Togo yal na ñu gañe waa xaaraat leen fii ñu ñëw ñu wulliwaat leen rek. jërë ngeen jëf kon mbokk yi dégg ngeen yëglikaay yi moo xam sunu làmb la moo xam record la. comme ni ngeen ko xamee bis bu nekk rek dañuy xëy dikk ñun ci wàllum làmb rawatina lépp lu ci tukkee ci ay xibaar maanaam gëstul ñu ko toppal ñu ko indil ñu ko kon ñaari journaux yooyu ñu ngi leen naan jaaraama rawatina ak sunu lamb bi nga xam ne moom 100 pour cent lamb lay def maa ngi nuyu waa sunu lamb yëpp seen rédaction bi yëpp maa ngi leen di jaar di leen ñaanal jàmm noonu lay nuyu tamit waa record waaw rédaction maa ngi di jaar di leen ñaanal jàmm rawatina ka xam ne nag moom moo fay dox ci wàllum lamb di ko gëstu ko bind muy sunu frère Assane Waalo Gaye waaw ñoom ñëpp maa ngi leen jaar ay Ablaye Dembélé sunu lamb ak ñu grand bakkan ñoom ñëpp maa ngi leen di bégg di leen ñaanal jàmm waaw tey nag euh, li nga xam ne moom moo gën a fës ci yëglikaay yi rawatina sunu làmb xëtam mu njëkk gis ngeen noonu Siteu ak Papa Sow moom lañ ñu wan noonu Pape Abdou Fall bi nga xam ne moo tëgg combat ba nag maanaam daal moo xëy tey ñëw di wax wala démb boog woon na li nga xam ne ñoom ñoo di presse bi fa nga xam ne moom moo di ca benn hôtel bu nekk fi nga xam ne nii moom moo di ci dëkk bi la war a doon jaje ba nag maanaam doon xool mook presse bi nan la ñu war a mën a dugg liggéeyee ci combat boobu ba nga xam ne moom du ci gaañu te presse bi du ci gaañu te itam engagement yi nga xam ne moom la ñuy jël ku ci nekk respecté ko bés ba parce que tamit des fois gis ci làmb ji vraiment ah, ñëpp presse la ñu nekk di ci liggéey di jox nit ñi information mais des fois da ngay gis débordement ba nga ah, ñu wax ko ak ñu ñàkk ko wax dëgg du ay nopp des fois dafay jàddu yoon te itam loolu il tamit ñu di ko teg ci aw yoon rawatina nag grand événement yi nga xam ne maanaam àddina dañ koy xaar parce que Siteu Papa Sow aadinaa koy xaar boobu ba tey kon buñ ci jëmee defe naa dafay baax toog waxtaan parce que nag réeroo du am mais waxtaan bu amee rek lépp mën nañ ko regle mooy régler angle yi waxtaan waaw joxante ciir vraiment Pape tamit ñu koy remercier par rapport ak acte boobu mu def démb ndax bu ko neexoon ah du ko def te it parce que moo dugal xaalisam te la mu wax leer na fa muy jaar ba def communication mën na ko ndax itam buy liggéey ak 2STV di liggéey ak E-Media ça dire que kon te itam du gan ci làmb kon bu ñu bu ci boolee presse en ligne bi wooleen waxtaan ak ñoom loolu dañ koy rafetlu lu nuyu suñu président Bour Guéweul waaye tamit côté sécurité làmb ja euh, boo bëggee dégg-dëgg maanaam lim ci xamle mooy lu toll ci 600 police euh, lu toll ci 600 euh, hommes de tenue yoo xam ne maanaam ci gendarmerie lay bokk ak police danañ ko mobiliser ngir bés boobu ma ne ko effectivement jar na ko parce que tamit c'est à Papa Sow événement la ndax li tax mooy ah ku ne xam na ne papa Sow fa mu génne muy Fass ba mu fa génnee ba tey bëreegul bii mooy nekk sortem bu njëkk bi mu génnee Fass mooy nekk sortem bu njëkk ak écrim bu bees bi ñuy wax Jàmbaar Wrestling Academy waaw sortem bu njëkk ginnaaw bi mu ñàkkeen kombaam ci digganteem ak Ama Balde kon defe naa ne tey combat boobu tey waa parcelle di ko waaj boobu ba tey ñu koy waaj ñu ngi koy dàq di ko dàqaat ah xam nga ne kon parcelle dinañ mobiliser bu baax a baax derrière Papa Sow pousser ko vers la victoire contre Siteu loolu nag moo tax Pape Abdou taxawee noonu ka ca des muy Siteu tamit bi mooy nekk génnam bu njëkk ginnaaw bi mu amee defet ci ki nga xam ne moom mooy guy gi xaw a gëj a bëre tuuti ndax Covid bi ndax combat bi yàgg na moom tamit Siteu moom ndax mobiliser dinañ ko mobiliser wala de loolu moom defe naa ne mooy géej jaam na ndox ndax yaakaar naa bi ñu jàppee combat bi war koo bëre ci benn weekend ah Siteu keroog muy def open press ku fa dem la nga fa gis ci mbooloo jafe na nga mbër di def open press nga gis ko kon ça veut que te la mu nar décider mooy day marché jàmm gën wuti stade Euh, arène nationale loolu nag boo amee xam nga ne jàmm gën yëpp topp ko caaro yi jaar pikin kon arène ba sécurité ba moom lu Pape Abdi def li mu def man de maa ngi koy rafetlu parce que tamit vraiment nit ñi bëgg nañ seetaan combat boobu ci dal ak ci teey supporters yi ñëw ñu ciy wax fair play rek yàlla na ci am te itam incha allah rabbi moo ci am ndax Siteu ak Papa Sow ay frère lañu. te ñoom ñaar ñooy mayante xaalis Pa Abdou Fall tamit kon defe naa ne bu bëggutee sam yàqu il fallait que mu sécuriser ko ci ci biir ak ci biti liñ naan avant pendant et après pour ñëpp mën ko seetaan ci jàmm loolu am na solo trop la ca des mooy ci côté la nga xam ne nii moom mooy euh, euh, organisation combat beeg yooyu grand table ak yooyu moom jàpp na ne bu doon suba suba la sax pare na ngir def ko effectivement parce que tamit ku dem ba engagé wu ci benn mbir jël sa xaas dugal ci defe naa ne kon yow pare nga pour def ko ça veut dire que loolu nag li muy jàngale mooy nit ki looy def rek lu mu mën a doon ah boo paree ngir def ko mu defe naa ne doo ci xaar ñu naan la parce que comme yaa nga ba def ba ba organiser defe bu ñu war nga mën a taxaw def la nga bëgg a def koy remercier bu baax a baax a baax a baax keneen koo xam ne tamit suñu frère la jamaïcain ku ne xam ne ne le 21 novembre la tëgg Pape Ndoye ak ki nga xam ne nii moom moo di Abou Niassé muy combat boo xam ne suñu lamb ñëw na ci tey ngeen gis ñaar ñooñu muy Pape Ndoye bu Fass ak Abou Niassé bu Lamsaar ku ne xam ne ne ñoom ñaar nag kii rakku lagros la muy Pape Ndoye ki ci des bras droit Siteu la man nañ ko waxee noonu ndax Pape Ndoye ak Lagrosse a bokk ndey baay Siteu foo gis Siteu di nga gis Abou Niass ci côté bi loolu mooy li am bañ leen xamee ba tey ñuy ànd parce que man da nga ne ay seex lañu kon combat boobu tamit combat bu am enjeu la parce que Siteu ak Lagrosse yàggees na koo wax amut tey seen ñaari rak di bëri kon defe naa ne combat bi itam jamaïcain ah la 21 novembre indi nga bés waaw muy combat boo xam ne soog la waaw soog bu méttee métti la waaye nag yàlla nañ ko fekk te tal ko di wax jàmm bis boobu tamit yàlla nañ ci génn ndam waaw comme niñ xam ne toog na ko daanuwul Forza bu Fass yëglikaay bi xëy tey sampa blaaj ndax pakala ko mën a taxawloo ah loolu nag pakala lekk avance bi xam naa loolu la bëgg te itam nañ fi ñoom ñaar pakala daan ko su ma juumul sax est-ce que du defetu ko ko joxoon yaakaar woon su ma juumulee waaw kon defe naa ne combat boobu tamit Gaston Mbengue suñu papa ko tëgg mu war am le 28 novembre yàlla nañ ci yegg ak jàmm ba tey ci bés boobu Zos ak ki nga xam ne nii moom mooy Alioune Seye 2 dinañ ca bëree yëglikaay bi tamit xëy na di laaj alin Seye 2 ndax dina ko def ko dina confirmer li mu wane woon ci digganteem ak Issa Pouye gis ngeen ko noonu parce que bi mu fi mujj daa daan Issa Pouye moom Alioune Seye 2 Gaston ko tëggoon ba tey mu ñëwaat joxaat ko Zos Zos nag moom ko ne dégg na la mu wax Alioune Seye 2 nee na ko daal lu mën a xew loolu moom da ngay sono sa bopp waaye man damay ñoos ñeexaat soo soosaat waaye sur <laughs> si léegi affaire ba ñëw ndax euh, soreetul ay quelques jours a ci des incha allah rabbi yàlla nañ ko fekkee fekkete tal ko buñ fa jogee record la ñuy dem fekk fa Fallou Ndiaye borom Ndiaye production suñu frère ginnaaw tafambër aada Fass seq na waxtaan ak Assane Waalo Gueye Fallou daal la mu xam daal ne na ah waaw waaw moom gis ngeen ko noonu Fallou Ndiaye waaw ne na ça ne compte pas sur les sponsors waaw la billetterie me rapporte suffisamment maanaam billetterie ba kon Euh, réglé na ay situation compte kon kon ci ay sponsor waaw moom noonu la noonu la waxee wax na dëgg des fois di nga tëgg làmb joo xam ne daf lay leer ne sans sponsor ñëw sax di nga génn parce que la tax mooy billetterie ba daf lay leer dina la indil njariñ parce que li tax mooy la ngay boole la ah ñoom nag wax dëgg yàlla lu waay wax di wax di tamit Ndiaye production nekk na benn label boo xam ne ni ñuy taxawal ay combat combat yi ñuy tëgg wax dëgg yàlla à tout moment bu ñu ko defee rek nit mën na tëgg sax combat bu ëpp niveau maanaam bu mën a ëpp niveau mooy mbër yu ëpp dayoo mbër yi ñuy tëgg mais boo boo du tere ñoom bu seen bés jotee da ngay gis kat ni seen bés day ëpp mobilisation loolu nag li ko waral mooy xam naa ne entourage bi la ñoom ñoom Fallou El Capo ñoom Tafa Mbeng gaa yooyu ko wër nga xam ne tamit ñu ngi liggéey ak moom ñoom am di Moustapha loolu tamit dafay baax parce que bon liggéey moom boo koy def boo ko seqeek ñi nga xam ne xam nañ milieu bi te itam ngeen di liggéey teg ko ci dëgg di waxante réalité dafay baax mooy waral lu mel ni nga mën a tëgg làmb génn ci ak ndam euh, am ci sax bénéfice ci côté xaalis sans sponsor waaye du tere tamit ñu ngi lay ñaanal nga am sponsor di ko ñaanal ku lu koy promoteur parce que tamit euh, day gën a neexal togg gi rek Fall waaw waaw yemu ca wax na ne tamit moom du tëgg mbër bu dul mobiliser waaw jamono ji moom xam naa ne du ma ne mbër bu dul mobilisé doo bëre de waaye xam naa du yam même bu ko bu bu dee Fall la ko wax beneen promoteur tamit même bu ko waxul tamit xam naa loola nekk ci xelam parce que li tax mooy comme amuñu sponsor assez sponsor yi nga a ay xaalis ci ñoom ñu tëgg mbër boo xam ne leer na leen tamit du leen konteel dara loolu day metti du tere nag mbër yëpp tamit mënuñoo tolloo dayoo mënuñoo tamit ni ñuy nit ñi waaye nag bon ñu ngi ñaan sponsor yi mën a ñëw ba sax mbër yi nga xam ne tamit seen sponsor seen mobilisation tollu noonu ñu mën a am combat mën a bëre waaw waaw loolu mooy li nga xam ne ni moom lañ ciy wax Euh, Rhinocéros ak Doudou Sané Doudou na ko par décision arbitrale ci ay avertissement yoo xam ne Ibamaar laa mel suñ mudu ñaa ko tëggoon muy combat boo xam ne ñëpp a ngi ko doon xaar mu neex lool waaye gis nga fa mujje ci ay avertissement la mujje ba Doudou Sané bu jof yor bu gagné gagné ko bu nekk tay si nga ëmma ko loolu mooy làmb kon di ko di encourager Rhinocéros mi ñàkk waaw par décision arbitrale équipe nationale yi Sénégal tamit ah ci bi moom ah vraiment boo xoolee 11 millions xam ne daal yaakaar naa moom la fa récolté 33 victoires gis ngeen noonu Euh, la fa jot dajale ci 35 combats xam 35 combats yoo xam ne jongante na ko waaw loolu nag waaw waaw boo xoolee Miss Global bi tamit yëgle bi na 25 millions la woon loolu nag li ñu def mooy li ñu ci gis mooy ah macha allah Sénégal moom ci wàllum làmb gañe leen ci jafe na trop rawatina CEDEAO bi saa yu ñu ko moo xam fii la Niger Burkina wala Nigeria fu ci mën a doon suñ demee dañ koy indi waaw loo xam du boo demee da koy jëli nag bu ñëwee sa dëkk moom ah tamit lay demee rek. waaw di leen féliciter encore une fois ñoom booy fay comme ni ma ko limee sànq ah ñoom du Momadou Fay ordinateur ñoom Ngor ñaax Gaja Fama mi nga xam ne tamit saf na xorom lool ñoom Moussa Fay yéen ñëpp ñu ngi leen di féliciter di wax féliciter euh, entre euh, équipe technique bi nga xam ne moo leen yore woon nekk muy entraîneurs yi ñoom Ambroise Sarr Bafa Gueye ak ñi leen waroon yëpp médic ñu yoroom wàllum faj mi ah yéen di remercier tamit. Euh, ki nga xam mooy Bira Sène vraiment euh, am na réussite totale ci tournoi CEDEAO bi vraiment muy lu njëkk mu koy def ci bi nga xam ne moom la jiite CNC di ko ñaanal yàlla tamit vraiment avancé gis nañ tamit complicité am ak Maysa Ndiaye muy am am solo parce que ñaar bu am complice ci biir li koy waral nag mooy comparaison day am bu comparaison amee rek complice euh, maanaam da ngeen di nekk ay complice waaw loolu am na solo trop ministre Matar Ba tamit teewaayam amoon na solo trop parce que moom tamit ku xam na ne moom nekkul bu nga xam ne ku jafee jot la maanaam accès ci moom jafewul te loolu li ko waral mooy xëy na dafa xam ne ab sénégalais la nuñ ko dénk ay ndomb te ndomb yi ëllëg da ko fi bàyyi keneen yoraat ko parce que éternellement mante ne loolu moo tax xam naa ne mu jàppee ko noonu di ko félicité moom tamit en tant que ministre ministre des sports ancien président CNG tamit teewaayam rafetoon na trop ñu koy félicité muy moo ci loxoom la tege waaw Manga 2 tamit ñu koy félicité ndax yaakaar naa ne lépp lu jëmoon ci organisation beeg yooyu moom moo ko yore woon di ko gérer di ko doxal kon loolu moo amoon fi nga xam ne moom mooy ci CEDEAO bi di nuyu ñëpp jàmm di wax que ne Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm di balu ñëpp ak rawatina nag suñu soppe yi ñu leen di bégge Cheikh Bass maa ngi lay bégge borom Kër Massar maa ngi lay ziar bu a baax a baax a baax a baax ah, ñoom Cissé ca Brésil ah ñoom Fallou ñaar depuis Maroc maa ngi koy ziar sama waajooju Adama Ndiaye ñoom Ndongo Fall Italie Awa Diop Touba Asi Nouakchott ah yéen ñëpp maa ngi leen di béggee Khady Rose tuuti Yaay Sarr tout le monde waaw di nuyu ñëpp di nuy ki nga xam te mooy Maodo Malick nekk fi nga xam ne ni moom mooy marché Grand Yoff bi fii maa ngi koy béggee bu baax a baax a baax a baax a baax di ko ñaanal jàmm Balde di la remercier yow mi nekkoon ci cadrage bi ak montage bi di wax que ni yàlla na def jàmm